Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sering sëriñ bi noo ngi di siyaar bu baax te di di leen jot li nuyoo Cheikh Modou Moussa Fall moom sëñ Abdou Sakour paling. Cheikh Ibrahima Fall noo ngi fii ci nyat. gi Touba gi fukki fan ak durom wii ñuy màggal ci aw safar màggal gi nag ndigalul sëñ Tuubaa la sant le ko ci sunu borom la wax lu sëñ Tuubaa masa santaane Cheikh Ibra Fall ca man euh, ñoo ngi ci kër sëñ Moustapha mu sëñ Sakkoor sëñ Sakkoor di Cheikh Ibra nu fas yéene taxawee ndigalul sëñ Bambali waaye ci toolub Cheikh Ibra bi sëñ Moussa Abdou moy mooy caatum sëñ waye Sakkoor waaye bayam da waxone ni dom ju ma jur te do Cheikh Ibra Fall du ma la fi bax kon domi sëñ Abdou yeb ay Cheikh Ibra lañ ci jëf ci melokan ci way ndigalul sëñ touba nak jëf rek la magal gi sunuy bay sunuy mama ko jitewon nekkon ca ba ni ko sëñ Fallou indee Touba ndax sëñ Touba moom tuubaa rek la ma sa bëgg waaye nekku fi woon Alaaji Fallou xam gu mu xam bëggug sëñ Touba gi tuubaa moo tax bis bi gënal sëñ Touba ci bis yi mooy màggalu Touba gi moom la digle moom la defal boppam ak jumaa ji moo tax sëriñ Fallou boole dajale màggal gi Touba ah ñu fekk ko baax. ndax nit ki li nga juddu fekk sa way jur ya nekkon ca da ko def so ca nekké di di def man nga wax ni dama ko fekk bax bamba ji nak day tol bo xamni ñew ci demb ak ñew ci tay jéeyam jëf rek la nu fasiyene jëf nu nu man waye di jëf ci doole Cheikh Moudou Moussa mom sëñ sakour ah, yen ñi nga xamni nak jog yor ay télé ak radio di wër ci màggal gi yéen itam bëgg a yaatal liggéeyu Sëñ Tuubaa bee tax yàlla na ngeen yaatu yàlla na yàlla yaatal leen dolli leen kartante dimbali leen yéen ak seeni kilifa ya ca kaw bañ ñi ci suuf Cheikh Moustapha nee na sant na leen ndax ay liggéeykat ngeen liggéey sëñ bi nag a yaatu ñii dañoo dem tool ñii dañoo joxe addiya ñii dañoo laxasaayu ñii dañoo tabax ñii dañoo yor écran ya ñii di joxe ndox ma gis nga ko lépp rek ñëpp a ngi ci lépp mbooleem lu ñu xalaat ne lu baax la mbooleem lu xalaat ne lu neex nit ñi la noo ngi ci loolu nag sëñ bi ni ko digal sëñ Tuubaa daa waxoon ne bu màggal gi ñëwatee yéen waa Touba na ngeen wàcc seen i lal génn seen i néeg wàcc seen i lal jox ko gan ñi bu leen xeeb ginaar bu leen naw giléem dal di wax ni màggal gi yéen waa Touba moom laa leen digal yéen murit yi seenub dund ak seen àjjana teguma ko ci seen jëf ak seen jaamu yàlla kon ñun loolu luñ ci man daanu ko def ndax sëñ Tuubaa la bëgg moom la ñu yaakaar moom moo ñu tax a jóg ñun ay Baay Faal lanu fii nag mooy kër Cheikh Ibra Fall Touba Paleen foo génn kër Cheikh Ibra ngay dugg ndax ci kër doomi Cheikh Ibra ngay dugg kër gii tey moo doon kër Cheikh Ibra Fall ci ci Touba muy kër Serigne Aliou Fall Mbawar gii ak kër Serigne Sakor Fall gii fii la Cheikh Ibra Fall ci tuubaa kon ku fi teg sa tànk bu la neexee waat ne teg naa sama tànk bii foo ko maam Cheikh Ibra tegoon loolu nag xéewal la noo ngi sant bu baax xam naa jot gee bariwul sëriñ bi dafa xaw a xat ndax moom sax moo bëggoon a waxtaan ak yéen. waaye fu ngeen ko fekk la day yor yor màggal gi te waxtu yii nu toll mooy màggal gi nag ci lañ war a jàngal xuraan ci lañ war a bernde ci lañ war a joxe xéewal yi ci lañ ko war a yaatal dëgg la ba ba weer wi tàmbalee la murit di tàmbali ba suñ joon yàlla tey te doon ba dañuy continuer fas nañ yéene sax di di ko def weer wi fukki fan ak juróom-ñett ba weer wa dee bu soobee yàlla noo ngi leen sant bu baax noo ngi leen di gërëm bu baax tey ñaan yàlla yokk leen ci barke sëñ Tuubaa barke Cheikh Ibrahima Fall doole sëñ Sakkoor jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf